petit. mën naa la. xëy dañ ne lii dafa demoon. ma demoon espoir. ma demoon espoir. Cisco laa àndoon. saa yi ma xaw a jël poids. ma jël poids yi fonde bee xaw ani am sa. am sa dafa dem kër yaayam wah, man iya gitu sama matin bima ma yeewoo gisuma ko. fa la fanaan tey. wéetal na kër gi dong wéetal will read them. Aisha euh, mm-hmm. Aïcha. man sama meilleur ami biñ ma xamee may ànd ak moom ba jusqu'à présent ni muy aw Pikine. moom mm-hmm. la ma ñëpp xamee. ni dangay am xaritu demb c'est vrai nag di nga may andando àndandoo. mais ci am ko xam sa mir ami lay doon yalla mom mo len bolé moy xam sa lepp yaay xam leppam mm-hmm. muy comme yaw ak euh, am xoolal xolal limi def day bayyi kërëm di ñew sa kër. di fi fanaan di fi am une semaine man lu ma koy jox su may jugee voyage rek dama ko xeeb dama koy xeeb trop trop trop. parce que euh, acte bi muy def moom moo moo nekk acte noble. ma bëggoon nag nga téye ko loolu rek nga ma mën a defal satisfaire ma <laughs> ba bis bu ñu leen di takk nag ngeen di xam ni am ngeen grande sœur. Mm. ay de sàmm laay woowee. mag ay de tànk koñ ba koñ. dégg nga <laughs> pipu la softal ah, grand soeur moom ko bàyyi parce que moom sama xarit la et dee rek moo ñu tàggale moom franchement parler dama hmm. mhm. ko promettre ah, dama na mu sa loxo hmm, itali ceeb yi ma fa doon tamit nag lu bon bi togg ma gis maa ngi ci lu neex fii yaa mel baara ngay wax ni nga ñàkkee fay la waaye Aïcha jugal toggal ma ceeb bu weex waaye eh, na bon bi togg yow tamit nag togg sama ongle yi am na lu ma bëggoon sama valise pour yow. Ah, ah. doo ko jot. déet bàyyi ma cub. ah bàyyi ma toog la luy wax nii nii. Eh, la da la fi bàyyi. da dem rek waaye bàyyi <laughs> ay eh, moment xam nga ni yow su ma sañoon chaque jour danga may gis. waaye une semaine yàlla gisuma la dégguma la. ñaana rek baara suñu ñëwee def takk bi. Ah. Mm-hmm. ah. waaye man xam nga ne yow même buñ la takkutit man chaque jour booy daagu ci kër gi man dooma ma sàppi. waaye nag maman li ma koy nuyoon te ne baara donc samedi lay ñëw man def sante boobaa nga ñaw ji ko sol. gisuma la lii de mm-hmm. xam nga. dengar nga def ko ci ñaw bi ma ko sa la ah du ne guleet de du ne guleet ndax xam naa ne dangaa bëgg baara ba bëggaale ma waaye nag baara day gaaw def farata ngay daagu ci sama biir kër mama bu ndaw <laughs> ah mama aana allah loolu moom dina mama kontaan naa de kontaanati naa sax lay ya. allah <laughs> xaaral ma xool commande bi ñun seetaan am na ko waroon seetaan waaye xaw ma commande bi tey. xam nga waaye bëgg ay film bu léegi. waaw gis na ko ci xoolal. mu ñëw am frigo ba am nañu ko nekk moom. kon nag loolu jox na ko déedéet jaay sama doom. ah <laughs> waaw kon baax na. mais way démb aéroport xat na. non xat na trop ça va. xat na bii peeru xat. mais xam naa gars yi léegi yokk nañ billet yi de. non c'est tellement excessif. mille cinq cent euros. mille cinq cent euros. mille cinq cent euros laa fay pour ñëw. loolu. non mais gars yi dañuy exagéré nag. fallait que ma ñëw. xoolal ku nekk bitim réew ak confinement bi liggéey amul nga fay mille cinq cent euros. pour wu ñëw. même comme que sama famille laa am. ñëw naa gis sama famille. gis la yow mii surtout sama xarit te yag nañu partager partager nañu lu bëri xam nga bu mu la gisse dama kontaan ba fàtte woon ñu waxtane won ñu waxtane won comme naka parce que maag yow lu waxtane waxtaane na ñu nekkee Europe ba léegi dañuy déggante boy bañu mujjé mujjee li mala wax waaw pour nga investir hmm. particulièrement sa diggante ak Aïcha wax nga dëgg de hmm. tu as parfaitement raison hmm. waaye loolu fàttewuma ko mais loolu moom dinaa ci xalaataat bu baax parce que yow sama xarit nga te lu baax rek nga ma yàgg a digal kon kon loolu amul benn problème. mais soo déggee mën naa sa diggante ak Aïcha. Mhm. bu ci fàtte kii dina fi satu nag booy soo duggee Italie ginnaaw yàlla moom la de. dëgg la de parce que Nafisatu moom laa njëkk a xam avant Aïcha. Mhm. parce que ñoo doon fréquenté même école moom moom a jàppale sax ba ma dem bitim réew. Mhm. li nga wax moom dëgg la mais comme que situation oblige parce que xol moom suy bëgg du du du du tàmm. kon baax na gis nga sa diggante ak ñoom. Mhm. dafa raar jamono ji dëgg la euh, ngay bëgganteeg rakam magam jël xaalis teg ko sa loxo pour nga liggéey ji bitim réew. te lenn moo koy faj. Mhm. muy ngor kasi moo ko mën a fay. booy ñooñu amoo seen fay de. waaw ah, li nga wax dëgg la moom. bu ci ñaaw de. non ne t'inquiète surtout pas loolu moom bu ci am xel ñaar. Mhm. parce que xel dalal. baax na. mais comme que sama yaay ak euh, Aïcha ñu ngi si waañ bi di préparer añ bi léegi na leen bàyyi ñu servir añ bi ba pare suñu servir añ bi ñu waxtaan xool ba bis la ñu mën a jàpp maag yow. way pourquoi pas jàpp dimanche. dimanche. Mhm. dimanche nga gis. waaw bah, bien sûr. mais est-ce que duñu xool vendredi. <laughs> yaa ko teree neex. ah. Mhm. parce que vendredi moom mooy bisu jullit yi ah. ah kon baax na. waaw mais amul problème. li xam la ñuy def ah. waaw bàyyi ma jëli carte yi ñëw ñu bële. ma duma la comme daaw. non da ko duma man yow yàgg naa la si fay. dag maa fay ma la ci bu la di yow. xaar ma baax rek baax na. ngi nelaw rek. ah yow na ma demoon aéroport nag looloo tax. ah na fi moom kañ la dem ba ñëwaat. non du na fi de. bara, kan yang ini bara woon aéroport. waa kan mooy baara yaa ngi baara baara rek ba jantal baax yaatu. Oke, sama ya? xam naa de am nga gàllaaj école doo génn ci cinq premier teg si am mag bu lay defal lépp bëgg ñëw am copain bu mel nii lii moom duma ko nangu dinaa ci jug waa baara moom kañ lañ koy seeti bon nag maa ngi nii may jug préparé pour dem fa li xam nga na ñuy def léegi dañuy xaar ma changé wu ñu ànd d'accord Bah. Hein. va J'ai quelque chose déjà. Ah, c'est mère Amila présenté, Je suis ravi de faire ta connaissance. Le plaisir est partagé. Il ah, n'y a pas de problème. Pas problème. problème. Pas de problème. Hein. Alhamdulillah. C'est bien, pas de Merci. mais nag boo ci xamul sama bébé moo la tàkk. wóoru ay ni la man dama ko tàmm ci dama ko tànn ci jigéen ñëpp moom laa bëgg a. waaw. naxoo ko. naxoo ko naxoo musuma nax bàyyi si li ngay def musuma nax. musuma nax mais comme que dama turam yoon pour dem. léegi nañ dem ma accompagner. d'accord même problème. tët am satu li ngay wax man mënuma kaa gëm. gis nga Baara mën naa la wan léegi preuve boo xamante démb rek kër xale bu góor boobu la fanaan. am satu sa wàcc loo nekk yaa ngi waaye yow ngeen Aïcha lan la wax ne ndaam ku muy bëgganteel quoi te dafa vierge. <laughs> Aïcha moo mën a fen xoolal démb démb démb sama gaale la fanaan boole ko nag di ma saraaxu Aïcha mën a fen la waa Xalil naka mu ci loo nekk yaa ngi ci jàmm ça va Xalil lan nga wax nga ne Aïcha sa kër la fanaan ay sax moo bon dëgg-dëgg te kaay ma xamala leen ne copain bi baara ñoom ñaar ak ñoo yàgg yow ndeysaan gaayen bi lu nekk la koy defaral mais ay amul jom day taxawaal te xam nga nag lim koy gëmloo nii nekkul ndeysaan man damaa yërëm baara sax chëtëtëtëtë lii de ko ko waxoon ci àddina du ko gëm

yow koo xam ne day taxawaalu rek loolu moo tax may jël sa appel da foog ne xaw ma lu ma ne lu nga nekkee fii ah li ngay def yëpp mu ngi sama bopp bi. bu ma nekkee Italie li nga doon def yëpp di lambar lambari de gauche à droite. ay baar loolu yëpp xam naa ko. lan la. da nga xam ne da ngay taxawaalu. mais lan xew comprendre ma. non essayer de comprendre nag essayer de comprendre il faut nga essayer comprendre. baar amoo looy ah, nga dem fréquenté ko. pas que man urut, dunia Europe lu nekk ma la koy defar te lu may wax ne dama ci Improve, ay improve? ay preuve am satu jox na improve, ay nanya. am satu en parlant de am satu baara lan nga ak am satu temps gis naa ko mu dugal matin midi soir lan nga sëkk ak am satu li ma ak am satu sa yoon newu ci lan mooy sama yoon nekku si am satu dafa toog ma gis ko bëgg ko am satu man am satu sa jere baara amsatu. juree pas amsatu sa xarit nga ko sa bopp allah le 5 damay takk amsatu. loolu du dëgg baara ne ma du amsatu sama meilleur ami da ngaa juum. sa lamañ bu bi nga ko. man sama décision jël naa ko ba pare. baara amsatu man. Kan baara prêt, s'il te plaît. damaa jël sama décision ferme incha allah bu neexee yàlla le 5. baara Aïcha lan la. yaay na la expliqué. lan la. yaay bu ma nekkee Italie kii ma bëgg ko lu nekk ma koy defaral ñàkkul dara yaay booy te koy yónnee xaalis ah muy nekk ci dëkk bi di taxawaal di lambar lambar yi di dugg de gauche à droite yaay booy ma gis xaytam am satu. bari yow nga doy waar nekk fu mu war a nekk. ma gis ko bëgg ko pour taxu ko yaay mu doon sama soxna. koy am satu. am satu xarit am satu waaw du dugg ci kër gi. yow baara yaa bon yaa yées baara yaa sew yaa xam lu bon. am satu ngay jëndee ay saam yi yow yaa eh, bu bëgg woon. Eh, moom bu du ma la war jugal jugal. moom ak kam bëgg man ak bëgg yow laa bëgg te yow lay tax. jugal noppi. Aïcha. ak naan. naan rek maa ngi fi. ak jàmm jàmm jaaxle moo tax ma woo jaaxle mel ni. waaw boo xoolee sama kanam gi xam ne sax nekkuma. ah tey kay moom sa kanam gi moom neexul. ok. sa dom nak motax ma woo sama dom waaw bar sama barama ma waaw bar ah, jam? Bar, aisha moko ko ab xaritam bu wax am sat waaw baara di doxanante ak mom bané da koy tak bar di fi bar lan moko dal nenañ ma nak sa koñ la xalé bu jigen bi dekk mané comme que sa koñ la xalé bu jigen bi dekk yow di ko war xam boo gisee dafa xaw a njool nii te ñuul Amsatu la tudd Amsatu déedéet déedéet déedéet xanaa du Amsatu mi ma xam de kër googu ma denda xam ah, lan moo ko dal dafa dof walla lan la lan moo ko dal bon kër googu la dugg kër goo nga xam ne taluñu lekk talu ñu naan xeex layset xëppante ay asib barki démb boo ñaay la yaayam génn ci pénison bii am na fa weer peccoor gom la sotti eh, kii nu mu tuddati eh, gom ci kooku la bëgg a dugg man de xoolal meer paa loolu yëpp méttiwu li ma gën a metti ci àddina mooy Aïssa ak li may defal lépp mbaax gi mu mbaax te lim ci xamul magi Aïssa moo gën a baax Aïssa Aïssa rek nga xam de Aïssa rek nag nga xam te moom nga gis mag ji moo defal baara mi invitation mu fekk ko fa mu nekk ba tax baara di yéeg di wàcc loolu bu ko magam ji déggee man lan laay wax. ah du ma am gàcce ah, bon. loolu moom dañ ciy jóg xale bi nga xam ne amul lu man moo man sama bopp laa xam bu ma dajee moom amul lu ma dul defal ah ngay seetaan loolu ba mu dugg ci kër gu bon gee man de duma ko seetaan jóg jot na de takk sa mbubb ak sama mbubb ñu xool nan lañuy def ndax loolu lu bon du ko xaar mukk ci àddina ma ne la buñ jullee léegi ñu dem yaa ko yàggal buñ eggee ci abu si mii dina def li muy def ma ko fi xaar ah, baax na daal man de boo ko xaaree duma ko xaar jàmm naa la présente sama copain nga may suufu yow les bisib gis nga alalu ku sàgg bu farloo ngay mujjee bokkuñu nday te bokkuñu baay may wax nga naa ma sama copain waaw sa copain moo ñëw def boo def jantal ma tey ko fii samay loxo gis nga xarit dama la dama ma sa xarit yaa ngi may dégg dégage poussal fii même banque te ñoom ani Cisco ndiwul sama oto. non non dama la soxla woon de depuis dem ba léegi daa am lu ma la bëggoon a wax. Aïssa dama yàkkamti te man ak yow ñoo bokk kër gi wuy ma dimbali ma rek su ma demee ba ñëw après ñu wax jàpp ci rek. soxla naa de. ñan moo xew moo soxla xaalis sa kanam dafa triste. bien sûr xanaa am sa ma présenté ko baaro ñu tourné di génn ba am na da koy takkale sànq. dégguma li ko wax de répète. xanaa Amsatu. Amsatu benn bi ñëw fii Amsatu sama rakk. kan moo la wax loolu. grand sœur xanaa baara. baara ban. moo ko wax ci gémmiñam ma dégg <laughs> mu toroxal ma dàkk ma ci biti. na ma génnoon. Hmm. baara man baara mu dàkk sama petite mu futti la doox. Aïcha wax ma leneen lu ma mën a dégg lu bokkul ak loolu baara moom moo avoué dafay takk Amsatou la cinq baara man baara sama baara ok problème boobu du sa problème sama problème la man baara day jaay bande ak obalim càccoo man la fiy fekk am satu nag bu dee kabasa la man maay ki koy régler man sa grande sœur parce que da ngeen di ànd mais de la yàgg na dinaa régler am satu ba fu mu gisatee man sama ngelawu famille dina ko romb. xaaral waaye je me rappelle de lui. moom laa bëgg nga bloquer ma ko mois mu génn Sénégal. yaa ngi mu dellu Italie six mois faaru d' accord. <laughs> na fi lu xew. <laughs> non yow comprendre de. yoo xam nga baara lan la def mas loo xam nga lu ma daj ci baara hmm. yow en tant que gars yi mu fekkee nga lépp hmm. teg nga sa bët lépp hmm. xam nga am sa. damay ànd ak Aïcha. am su may téye noir bi. waaw. Aïcha moom présenté Baara am sa baaraam lu muy def yéeg yaay daal ci suuf doxaan am sa wala Baara. Baara mooy takk am sa gel bu sadik boobu noonu. Baara sama xarit. Mm-hmm. Baara ak li nga defal. baara su duggee lewi atas yaa tax li nga daj ci ay papillon baara nga ne baara day foo wala yéen lay yëngal wala nu mu fa demee noonu. day foo maas dana neex. mais bi li gën a doy waar. nga daj yow ci ay papier sa li nga fay mosoo ko fay sax ci ay document. parce que ay anyway dossier boobu ma ko ma ku ci nekk dina am fu mu la classé. loolu moom je valide quoi. mais na fi. naa nga def lu mais ay yàq papier baar loolu mu ci dugg xoolal ci yaayam parce que rafet na ba heure bi bu ko ñaawal. maas man aw ma jëkkër aw ma doom Aïssa mooy sama jëkkër mooy sama doom moom laa am du ma nangu kenn di ko teg naqaru xol. baara amul lu muy def lu dul muy dàkk ay saa seen di ko dàkk war na fa dem mu koy dàkk baara man loolu may fayee ok. en tout cas daal man moom ko fi man lépp lépp la ma fekk fi nga jaar ak baara dara ump ma ci mais xalaatal bu baax. balaa ngaa yàq ay kayitam yàq àdduna xoolaatal baax li ngay def. Mass bugguma def lu baax ma pare di ko yàq parce que waruma mais baara baara Mass imagine nga baara man baara bi ma bokkaloon école lan laa daj ci baara ci bon Cisco bàyyi noonu ma xaar. d'accord mais da ngay xam nga ni sama ànd ak yow fii lay daggee booy jaam nga imbécile nga yow Aïcha war na jël coupe bi am satu moo ñëw mool mel ni mu war a mel ma gis ko bëgg ko. yow booy fi Aïcha jaar ak yow fi satu jaar ak yow li ngeen di fayee yow jaam nga traité nga warkat nga te gis nga am satu soo ko takkee ma xam ni mbër nga. muy yow di Aïcha di Nafi ak ku mu mënti doon am satu moomu leen gënal. rupture ko bañ finaliser ko instant bi kay moom maa ngi si yeneen franchement rek da ne ah, Cisco Cisco mu fi il va très bien waaw soxla naa ko ñu wuyu mais li ma la yónnee ça te va et eh, xanaa gisoo ma maa ngi sinab di fël chaque jour ma sañse ba tey nag yére bagage jeexagul de ah bon ba tey maa ngi bees mais nag tey dama xaw a stressé wu tuuti rek hmm. ah. euh, waaw xam nga am satu am bi imbécile la hmm? yaa ngi doon dégg baara copain wu Aïcha dama bokkoon ak moom école baara dama koy dégg am satu sobo bu ma jënd pour Aïcha jëndal ko oh ma jëndal ko man damay jox am satu sax di tëb Aïcha am satu imbécile bi am lu muy def lu dul Aïcha présenté ko Baara mu ne da koy suufiyee yaay te loo ci xamula ah? Baara man maa lijjanti ay kayitam ba mu génn Sénégal am satu jour bi muy ànd ak Aïcha di dem mu koy présenté Baara man maa tijji sama valise jox ko yëre bi mu sol alors pare naa pour teg cinq cent mille ci table ji uniquement pour kaaw am satu loolu melal ni dossier am satu kese nga soxla di ko am sa loxo bii ba mbëri doole dinaa la jox preuve yu leer nañ si moom mais moom minute bu baax sax hmm. lenn laa la bëgg wax gasoil blanc sama oto looy doxal say course ci am satu pare naa teg cinq cent mais benn question rek laa soxla Amsatou est-ce que am na ak yow comme lien yi mu am ak ñun. relation bu baax la bu sori laa amante ak moom pour may filtrer ko rek loolu du coow. ok ma la jox sac liquide laa lay jox désormais nga taxaw na cay dossier. boo ma joxul dara si réew mi. man la Amsatou loo koy doy lijjanti sa problème ma lijjanti sama problème ah yow doom am nga fitti lijjanti sa problème ma lijjanti sama problème na jadd taxaw ci sama kanam di seet sama doom ma lay laaj loo koy doy nga ne ma lijjanti sa problème ma lijjanti sama problème fii di yow yaa ngi masa daal bu baax sa bopp gis nga mère sa doom baara lii neex ci moom man maa ko koy jox ah, kon yow yaay Amsatou ñu may dégg yow yaay gone bu ñeme gi daal maanaam yaay gone gu amu fit fii nga may fekk ngay ñeme. maman et toi aussi. walla mais sama gan tamit nga koy dàq. bébé dem ci biir. am fit ak ñeme yooyu nga wàcc sa sa baay ñëw di seeti ay góor. si war a raxas war a togg war a yàq war a def leneen ak leneen nga di wër di xuutal xuutal di wër ay góor yow yaa bon ku gis sa col ko gis sa xam ne yow doo tekki woo dara xam ne jigéen ju bon nga. waaye nag doxal at naa sa kanam. bii day boo yaakaaree ne sama doom ji dama koo dama dama dama koy fooy yaa ngi nax sa bopp kii kenn ko fooy li ngay am fit te ñeme tas. jiw laa xale jigéen ñi ñoo perdu xam nga laa bëgg a xam actuellement nii lan nga ma indi fi mu moom dégg ma gisuma parce que la sànq moom daanaka ñëw na ba pare te bu mariage ba xasee ba am moom mënatuma ci dara danga ci toppaar rek bàyyi ba jaam dem nga topp ci wati bii dóor lay doon oto bu bëgg nga tegal ma lu leer kii mooy doomaram. noonu nee na loolu daal mooy plan kon kii ay intention nekkul woon sax bëgg waa ji naturellement. mosu koo doon. te li moom bu dul preuve actuellement ni moom maa ngi fay ci géeju baax. mais damaa jom ne. ñaata laa la joxoon cinq cent mille. naa la ci trois cent mille muy huit cent mille. ñaari cheveux temps dëmb. waaw te maa yuuxu. léegi xam nga nooy def. ah. ne leen sëfoor bi yëpp demal ci salon bi. ma woo Aïcha mu préparé ngeen dem xola du ñàkk moom nga fekk ko fa boo ko fa fekkul baara mi ngi fa yaayam mi ngi fa nga tegal leen ko di comme preuve. ñu xam doomaram bi lan moo ko yëkkati. dootu ko defati. xoolal soo amul woon ci même réew te coronavirus ak ci réew ma ñàkk du ma mën a def sama liggéey ah. incha ci salon bi. sañse mu toj safoor bi yóbbu leen Fafa day jaar këram changé ngeen ànd dem kër baara donc kon soo foofu lu ma fa dellu de kañ laa daan wax nga koy teggi dafa am lu xew mënuma la expliquer dara Amsatou du nee na bandi la du nee kooba la ndax xam ne maa ko jëkk a dox maa ko gën a wëyu maa ko gën a ñemelu xotteeku maa ko gën a bandi aller ak retour xam nga terrain bi actuellement ni yow lan nga ciy doon arbitre sa grande sœur mooy football football bi àndal ak moom mu dem këram changé yow bala ngaa dem sañ seen moo mel ni jàmm d'accord jógal ba teg sa beneen jógal dama fi jotoon xew yaa sa diggante ak ay amsatu amsatu ñëw na pour ñëw jégul la dama bëggoon rek nga baal ko parce que incha allah la cinq moom laa bëgg a tax. yaay booy dama ñëwoon rek pour nga baal ma àq. Baara. Ah, dinaa la wax leen de musoo maa yab te dooma yab te tey nga may yab yaa ngi may dégg bu baax. sama waxu démb mooy sama waxu tey amsatu doo ko takk tey doo ko takk ëllëg falaa ak yow nag te duma ko waxaat. am sa du moo fi daaw sama yu nekkul ci loolu salaam comme que da ngeen indi sakoon nii ah? ku fiñ kaay fi ma taxaw am satu baax na n'est-ce pas du yaay baar. ki nga bëgg a takk. nobbu la. loolu foo ko teg. la xamal ki nga bëgg a takk. ah damay amul pudeur eh la je yow seytaane te fumiste na faroo fenn. xam nga lu ma bëgg awma lu may

gis nga la cinq cinq heures pile payi daal di may xale yi séddale guro rek ñu sàcc da ngay ñëw kër ga ma may la guro moo gën ngay wër di wax gàddu sa saak bi fu ne nga taxaw fa di wax sama diggante kii du yaa koy mais lu leer nga wax rek man dama bëgg nga wan ma lu leer mais wan ma lu leer coucou ma puce comment tu vas ça va bien boy ci loo nekk waaw satu yow dama laa namm ba mu bëri doole maa la raw lu bari jànk man maa kontaan ci yow nànk Aïcha nekk si koñ bi di ruube koñ bi noonu foog ne lu baax lu ne rek si loxoom la war a tegu nga ñëw jaay ko jikko bandi ba mu xol bi lu mu bëgg rek nga wax ma nii rek mariage bi nan lay demee. gis nga jànk. Hmm? lii plan A rek. déedéet kay. te des na plan bi ah. est-ce que xam nga lan mooy plan B bi. yow rek lay déglu. mooy xale bu góor bi jël ma yóbbu ma ba Italie. ah. ma xool tubaab bu am xaalis ànd ak moom. waa këy nag wax du am ne ko bu ñukk la ko wax wax du am dara tu am waaye bu booba ngay xam ne miim réew ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom nga attaqué plan A jël bee bàyyee ma seebi man kooku ko cam lii yëpp waxoon naa la ko nga jël sa bët bi rek luqi ko rek daaj ci gone gi ne dee rek ñu wax rek nga ne am sat léegi nag mu ngi nii añ baa ngi nii yow boo yaakaaree ne yow mën ngaa këpp sama liggéey yow yaa ngi nax sa bopp man ba may liggéey boobu juddu woo yow yaa ma yàqal lenn yow sant naa la gërëm naa la yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla defal jàmm jërëjëf. ñoo ko bokk maman placé baa ngi noonu. xanaa du ma am preuve. merci. yow jooy koo sax. yow dimbale ñu ñun bu ñu jooy. pas aujourd'hui ça va se faire. non mais dañuy gagné ay waaye loo leen baax ma ngeer ko. victoire papa. dañuy gagné lu bëri. surtout nag ne triche pas dégg nga. yàq saamu naa ko ci mm-hmm. kuréel njëkk ya bilaay moom fils à moi. Mm-hmm. kenn xamul lii la oh, papa. on va gérer t'inquiète pas. ah diis <laughs> la ko fay fekk ni ko. Ah. Ah. waay. Ibu lu mu ci des. ngeen di jouer Ibu di Ibu non non non Ibu tàmm na loolu. qu'est-ce que lan la Ibu def. qu'est-ce que fait avec dara ah Ibu a volé. non. yow Ibu nan la mën a volé te ñuy jouer maag sa papa may dóor muy dóor. non non je ne pas avec toi je parle avec papa. encore beneen. papa yow say 5-0 yu démb yi fi la ma fay. ah kan moo ma dóor sax. papa a gagné yow li ma la def démb. 5-0 5-0. Hmm? da nga koo wedd. waaw mais yéen a rey encore. Ibu a triqué rek ah bu baax. Ibu nan la waaw baax Ibu dafa la sàcc. bu beneen yoon yaay baat rek. foog eh, na rek j'abandonne. lan bàyyi na. <laughs> da a gagné toujours. kon baax na Ibou kaay ñu joué. dañu bàyyi ma wax ak ñuy gerd. daal dàq naa ko dàq yu rëy. waa démb tey grave waaye tey bu ñu fekkee ma dàq. waaw euh, euh, <laughs> waaw na ko daal amul problème amul problème. non Ibou dafa truqué bàyyi ma nangu sama. yéen ñi sax ku ko mën war koo rus a def bàyyi ma baal la. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maître Nafissatou fii la dëkk. maa ngi nii. waa kañ la maître daan nekk jigéen moom. salaamaaleykum gis nga kii bàyyi jitleem da ko viole te nag andi nañ deux cent mille teg ko fii si kaw taabal pour nga tëj ko fanweeri ak dammal ñu caabi bi loolu rek lañ bëgg. ndax bu pare na ci kii damay ñëw violé te pare day violé xale koñ ba ñëpp nag. ci

sa yaay yëg na ko. non non waxuma ko ci dara. ok léegi. Euh, madame Awa boo génnee fii sama kër première angle ci koñ bi première deuxième troisième angle boo jàddee ci tali bi police baa ngi foofu mooy police su parcelle demal foofu nga def sa plainte contre X nga déposé ko à la police man bu dossier bi génnee dinaa ko jël.

Okay, merci beaucoup. Okay, merci, beaucoup. Adila, todo mundo sange. <laughs> eu falei, mano, né? Eu falei, Ana, eu te gosto tanto fofo, lá, mota. Ah, tem um que na câmera. Uai, o bebê que né? Que sacarila? Oui, sacarila, depuis Paris. Uai, que do que presente sacarila de Senegal? Sei como tu não, ma chérie? Ah, Senegal, que é mom, minha, mom. Não, da maneira, não, tudo. Amsa? Amsa. أمسكي تعيش المات ما شاء الله يصير بدي تكوني أتسنك تخرج بدي فرفت أنا بيا طابق ميربي judum espo judum retraite buñ ba léegi waaw mari moom pour ñëw fa lan ngay tapé si google mag bi ak facebook ma chérie pour dépendre ci facebook ni google da ngay euh, wut visa soo ñaanee mu ñu may la wala sax nga am invitation ku la invité xam da ngay ñëw directement xam moom fu koy ñaanee. léegi su ko defee bala ma dem dinaa jox information yëpp nga xam ne sa ñëw day gën a yomb. su ko defee rek waaye ah, na solo de xam nga ne fay diplôme moo lay dugal fu nekk soo bëggee réussir ci sa dund. ah waxal ak moom de. moom mi nga xamne amna ñuko fayal pour mu jang man maa ngi nii aw ma fayal te janguma yeddu ko nak yow gis nga ki rek wona tax sax nga gëna gogol ci sa jang bi xam nga ni fi ay papier mo la fay jàppale de hmm. D'accord, ma chérie. Après, je fais toutes mes possibilités pour me continuer. Donc, dé. Oui. Les gens, ils def. dama bëgg chocolat, dama ñu and boutique. Xam nga j'ai envie de le manger yo tamit après. Dama ko bëgg torop ñu and boutique. waaye yéen ma ñëw. ma chérie ñëw ñu dem bien sûr. grand ça va ça va bien maa ngi am jàmm sant yàlla bu baax man de commencé gël tàppe laa bëggoon dem soxla woon cent franc rek ma passé cent franc grand yow amoo cent franc ni Sénégal métti na dee ba cent franc war a tëj jàmm yàlla yi grand lan moo xew ba yoroo cent franc nekk ci ay xat-xat rek ndax man étranger laa fan nga jóge Côte d'Ivoire laa jóge mais def naa fi quatre ans maag samay xarit euh, fii laa jàngee lépp fii laa déggee olof euh, dañ fi nekkoon di liggéey pour mën a dajale benn somme pour dellu suñu dëkk investir def nañ dajale benn somme sax ba ki ci gën a mag mu doon denc xaalis bi mais aw lu dul ñëw rek fekk ñu yóbbu lépp bàyyi ma fa xottu nekk ak saag bii nii daf ma nekkoon sax génnee nañu. waaw oh. fan yii yëpp ci mbedd bi laay fanaan ci suuf taabal bi. mais seen xarit yooyu bonne na ñu vrai traître lañ te fi nga jëm gël tàpp ñoo sa lan la. dama dégg ni am na sama mbokk suuf yu fa nekk moom ko dama sormi ci tëdd ci suufu table yi mais naa fa dem xool. yow lan nga mën a liggéey. man mën naa liggéey yëpp mën naa ménage mën naa fóot mën naa d' accord xam nga la ñuy def da ngay ñëw ñu dem suñu kër parce que man fan yëpp sama papa. mu ngi wax ne dafa bëgg wut gardien te da ngay ñëw dem kër ga maa jox xam nga boole laak moom nga jëla nga liggéey kër gi di nga mën a dëkk di fa lekk di fa naan amul benn problème wàññi sucre bi. Ah mhm. mburu moom wax ma ci dara bàyyi naa mburu mhm. waaw waaw. il ñu moytu pâtes yeeg sucre yi. parce que soo bokkee ci famille bu obèse moom faaw nga bàyyi yooyu boo ko mënta bàyyi nga wàññi ko. sucre bu bëri baaxul sax. baaxul moom ko def nii sans le sport c'est dangereux. sport moom dañ ko ñun farataaluñ ko nag Sénégal mais lu baax la ci yaram. mais mburu bi bàyyi ah, ah, bu tax ma lekk du ko rek c'est bon de. Ibrahima foo nekkoon. ñu ngi mënee dox. maa yow yaa am yónni woon citron di. moom fàtte naa ko di. xoolal lii yónni sa doom ba pare di ko wër nii. citron deux jours mi doog a yegg si nooy defa duma ko fàtte waa naa citron bi sax léegi. mu ngi si cuisine bi. yoratu ko sama café bi sedd mas, Maas Maas yegg si. yow yaa baadoo la nga ànd ak gan bàyyi ko fee nga ñëw maaleykum salaam. moom tey moo eh, jugal jugal jugal dama toog ne. sa wàcc fauteuil bi. ça va. papa. oui. kii la tudd. amul fenn fu fanaan amul fu mu dëkk. donc euh, waxtaanee ak man ma ne ko ça fait parce que sama papa euh, dafa bëggoon gardien. donc ci la and mom pour ñëw fi ni pour nga jël ko comme gardien jam ci yalla tu vas bien. ya ngi si jam bu ba yow fo dekk man ko divar la jógee. Côte depuis quand. depuis 4 ans. ah 4 ans kon de xana war nga dégg wolof moom. 4 ans Sénégal kay di nga dégg dara. tu as quel âge. 25 ans. 25 ans. kii moromu Ibou la ah. Ibou moo mag Ibou moo mag Ibou trois ans. waaw deux ans la noo wàññi yokk at kii trois ans. <laughs> nga yokk trop. d'accord nga bëggoon liggéey comme gardien. loolu moom c'est trop vaste. ah cinquante mille. Mm. le ko bon xam métier de risque dafa bëri ay problèmes. donc yow a aussi ça tu dois être en sécurité donc euh, je vais te proposer un salaire au 100 000 francs en plus de ça dès que tu biir kër tu fi ngay fanaan fi ngay añee fi on est d'accord. eh Mas. Eh, Mas. bul jooy bul jooy tey ji Ibou ngi nii suñu doom la tey suba xamoon lan lay lan lan lay société di ko jariñ donc def lu baax rek moo ñu war waaw jugal jugal ko mu euh, sang waaw nga defal ko bagage am jom rek adna amul solo def lu baax rek moom solo non mais c'est vrai mhm. les temps sont durs billaay lu waay def ci nit rek yàq ko vraiment. koo mën a dimbali rek ci fin et puis te yàlla tax. franchement.